man d'ailleurs gëm naa sax ni loolu bokk na ci li tax Macky recevoir oon Marine Le Pen mosol ko fi ndax jàppoon na ni bu Macron demee Le Pen ay ñëw biir Élysée et que moom dossier day tombeek Le Pen nekk président bu France man gëm naa ni li tax mu recevoir oon Le Pen dëgg-dëgg mosol ko ñii naan dëgg la ak du dëgg c'était pas en réalité pour def lu naqari Macron mais da doon anticiper ji ëllëg moom bu fi moom bu fi jógee dossier ñu war koo jébbal Sénégal ou pas am mandat d'arrêt bu ñu bu ñu jébbal ndax France dana ko extradé ou pas Macky nag diw moo gën a positionné pour nekk. kon li nga wax ni su fekkee noonu la demee moom couvrir na déjà ses arrières et dans ce mhm. cas là peut-être traqué traqué ko ba jot ci moom loolu moom mun nañ ni léegi nag impossible léegi nag comme que impossible na am na loo mën a def mooy l'étouffer mooy dangay fexe ba Macky du la tala attaqué dafay tala protéger boppam. mooy du am euh, capacité de manœuvrer de nuisance wala de déstabiliser toujours Macky mi ngi couvrir ay arrière mooy def ay mandat d'arrêt def ay commission ngir jéem a jot bépp dërëm boo xam ne Macky Sall ko moom te muy taxawaalu ci àddina bi à partir de ce moment yow Macky Sall xola mm. dafay def consacré wu plus de temps à se protéger. te di la jéem a déstabiliser. Mm. su boobaa xaalisam du taxawaalu day rapatrier ci comptabilité. su boobaa du def ay mouvement bancaire yu bëri su boobaa mag yi du def ay déplacement à ce moment là yi dafay bàyyi presque activité parti bi. est-ce que kon dans mooy li mu defoon Ablaye Wade. oui déggoon nga ay dara si la am bi ñu jàppoon fii aéroport déggoon nga xaalis bi fi Ablaye dugaloon chèque 3 milliards ba Wade Macky du ko étouffé may ko capacité Wade mën a manœuvrer. Macky Sall ak noonu nga koy. est-ce que du Mimi tey ji loolu lay jéem a def. waaw man gëm naa man tamit gëm naa ne looloo parce que dégg nañ ko tout à l'heure mu ne. Mhm. Euh, euh, tey jii ba ci fan yi yëpp ni ñu gis ni action yi nga xamante ni les membres de l'APR ñi ngi koy posé moom jàpp na ni Macky Sall moo nekk ci ginnaaw di roubé. parce que jàpp na ni kenn amul sañ-sañu. ci biir parti bi. loolu laa gëm woo sax benn Cheikh Touré janoog moom sans pour autant avoir l'accord tey ji du président Macky Sall. wax ñuy wax mooy double bouton yi mooy ñi nga xam ne Macky moo leen actionné depuis depuis Marrakech wala Paris. boo xoolee décoru ñuy wax da ngay xam ne lii commande la du ay nitu conviction nittu gis-gis noonu nit lañ yoo xam ne dañ leen santu ñuy exécuter ñooñu amuñu bëgg-bëgg amuñu amuñu décision bu ñuy jël musuñ jël benn initiative bi réew mi di tàq dellu dellul nga seetaan conférence de presse ñi fa nekkoon nga dellu bi réew mi di tàq ñan ñoo jëloon sax initiative bu wax au no de la paix mooy ñu misul jël initiative donc Macky les commande. mais foofu ñaari wax dafa am. Mhm. cest dire moom jàpp na ni Macky moo leen di commandé. mais aussi mhm. jàpp na ni ñoom ñu dañoo nekk actuellement di waajal seen bopp ngir législative yi di ñëw. Mhm. Macky mun leen dugal ci li nga xamante ni bu leen Macky Sall commandé bu ñu exécuté bu li signé Macky mun leen dugal. boo xoolee ñiy wax c'est les wala troisième couteau sax. Macky musul am confiance ci ba def leen ministre. non je ni mu waxee foofu. benn instant mu ne nga ci am benn déggin que ni. ñoom seen bopp la ñuy def kenn santu leen ko dañuy def rek pour neexal Macky Sall ngir mu sooraal leen ci liste yi daf leen après ci mu ñëw pour wax ni Macky Sall moom moo leen sant non man dama gëm ni daf leen sant sal boulot ñu di ko def ngir mu neexalee leen après maanaam ci liste yi gañaa gañaa la gañaa gañaa la mooy ñii naa leen sant lu lu nit ñu am fayda dul def ñoom danañ ko def ngir mu dugal leen ci liste yi parce que xoolal kan mooy wax ab dumbo nee na la compagnon de première heure Macky Sall du dëgg maanaam ba Macky di wut Abdou Mbow fal nañ sax comment elle s'appelle encore Pape Malick Ndour ci kaw ministre ab Mbow fal nañ ñëpp ci kaw ministre ba mu des moom ba fi ñu jonn yàllaay tey ba Macky Sall di génn mosu ko fal. fal laal Macky Sall est-ce que ah, dina ëpp dina ëpp solo foofu ci assemblée de assemblée amu fa benn présence bu am solo. c'est juste que loolu. nit ku la fulaalu xoolal waaye nit ku la fulaalut. nit ku la fulaalul moo lay def noonu et dégg nga plusieurs fois des membres hmm, de sa coalition génn plusieurs fois wax ni ñëw na di jàmbat ci ñoom ci mbirum li tax faluñ ko ci remaniement bii wala bële ñu nga fay gis ñi am fu ñi ñi jiñoon ne ñu am fula lañ biir benn yëpp gisoo leen fa ña nga seen kër yi toog teg la seen tànk mais xoolal ñi nga xam ne. second côté yi rek ngay gis ñuy génn second côté yi bu leen Macky Sall defaatee député ñu jël. Hmm. continuer fay seen prêt mottali seen chantier jeex na. ci boobu la sorti nag ñoom critiqué nañu li nga xamante ni moom moo di euh, bilan wu euh, président Bassirou Diomaye Faye jàpp nañ ni sax président la bu nga xamante ni ba mu toogee ba tey tâtonnement lay def ak it di wax waxeet la mu ba ba tey ak la muy teg bokkul mais ku mel ni Mimi tey moom dafa jàpp ni 100 jours yi daal moom rien à dire. daf na bébé la jéego yi nga xamante ni teg nañ ko daal macha allah. daf ne liir la boo xam ne du prématuré waaye liir bu mat sëkk la maanaam liir la dafa tooy waaye prématuré wul nag léegi d'accord à supposer que li Abdou Mbow wax dëgg la président Diomaye dafay tâtonné léegi damay jël acte yi président Diomaye posé te ñoom ñu waroon ko posé defuñu ñoom ñu fi def douze ans moom mu def fi trois mois nañ ñëw. président bi mu ñëwee fay na une partie de la dette des agriculteurs boo xam ne trois ans la ko Macky yor mënu ko fay mi ngi ko traîner trois ans président fay na ko ci trois mois kon ñoom bu dee président day tâtonner ba mun a fay ñoom dette bu ñu ameel trois ans kon ñoom lan lañ Sénégalais yi danañ ko daaneel président bi mu ñëwee rappel na bourse étudiants yi nee nañ ma bàyyi seen bourse yi muy tudd dama leen a teg bët du dëgg fay ba def rappel. ñoom mënuñ koon fay ba étudiants yi di grève kon ñoom lan lañ bu dee ki nga xam ne day tâtonner fay na si yow mi def 12 ans maîtriser boo fayut kon yow lan nga président fay na une partie de la dette des hôpitaux ñoom mënuñ koon fay maanaam bu dee kiy tâtonner réussir na lii lépp ba subventionner prix denrées de première nécessité yi ñoom ñi nga xam ne tâtonner wuñ ñoom kon dañoo bonoon lii rek la mën a bu dee kii tâtonné mën na gérer lii yow mi tâtonné wul te gérer woo ko yow lan nga gis nga ab Mbow ñoom bu ñu defee président Diomaye cuune ñoom ñoo ciy ñaaw. nee nañu daal ñoom réew mi président Diomaye bu mu ñëwee dafa fekk ay doomi góor yu bari rek di woy di amal xamante ni moo di ngénte yi maanaam na bu ñu fi ñëwee ba tey lépp lu ñuy teg ba ci wàllum koom lépp dañ ko fi fekk maanaam ñoom même su fekkoon ni keneen ku mu mënti doon nekkoon na président jalon yu ñu teg nii rek loolee rek la ñu mën a teg dëgg réew mu doon waaja a fayit lañ fi bàyyi toog nga fii bi président Diomaye di door a toog man la kees yi dara newu ci waxu ko keroog wala wax na ko keroog. président wax na ko. jeex na mais Abdou Mbow ne na ko. Abdou Mbow li mu wax amut man maa la wax na la xala li mu wax amut mais nee na ko kon dans ce cas là soit da nga xamul fonctionnement wu état wala ba comprendre ko kees nu muy demee ndax nee na ko. looloo kees yi boo jàppee da ngay ñëw fekk ay yu fees xaalis. looloo ma def ree rek looloo ma yi di demee Abdou Mbow. souvent boo leen di dégg il sous-entend que ñoom ñoo gën a xam ni état di fonctionner le président Diomaye Abdou Mbow luy formation journaliste président Diomaye luy formation cadre de l' administration ENA école biy formé ñuy yore état waaw kooku bu xamul état Abdou Mbow mi nga xam ni kenn xamul luy formation moo xam état mais kon nañ tas ENA. mais ñoom Abdou Mbow def nañ fa plus de 12 ans. non xaaral rek voilà léegi ñoom Abdou Mbow bi ñu ñëwee ñoom xam nga Abdou Mbow li muy wax. xale yi juddu tey la xeex mais ñun ñu fekkee seen falu démb duñu ko wax. bennoo falu nañ fi diir di tatone ba birinoo jaataa yàlla na ko yàlla yërëm di leen defal ay cours loolu fii lañ fekk yàggut falu nañ fi diir di tatone di jaxase mélange loolu démb la 2012 comme démb ci man bi leen fi mënd bi di fekk ñuy yalwaan ci tele yi comme démb ci man mais des fois dañuy wax comme si ñoom ay lay cëpp lañ ci asamaan si ñoom ñoo maîtriser état ñoom ñoo maîtriser lépp xoolal pend 2012 damay gëmm di ko fàttaliku comme démb Abdou Mbow biñ koy moom la xaw ma beneen waa ji biñ koy agressé ci pont université bii loolu comme démb jamonoy manifestation yi en 2011 cest dire ñoom des fois dañuy wax mu mel ni ñoom état dañ ko peeg dañ ko maîtriser alors que c'est faux pend li ñuy wax amul. li am mooy pays bu ñu pillé lañ fi bàyyi. ci instance yu bëri dañ jël budget bi na ko furaax lekk bi ma koy wax président Diomaye defagul une semaine laa wax na la fekku fi xaalis bu defuloon yitt dëgg duñ fay salaire mois boobu mi ngi fay salaire ba léegi salaire yi taxul plus mi ngi fay ay dette président bu defuloon yitte mois boobu duñ fay salaire source bu leer laa ci amoon n'empêche ni ngi fay ay salaire ñii réew mu fay lañ fi bàyyi contentieux yu dul jeex ci ay direction puis alors xaaral ma ñëw gis nga ministère du sport bi ngay dégg fan yi mais amul lu ko gën a nekk scandale danaa la indil dossier bi fii teg ko di ko càmbar ak benn par benn teg Pape Amadou mbay juriste dañ lekk xaalis bi maanaam ñii gis nga looxoor yi ñu fi def bis bu ko Sénégal nee naa leen je comprends li tax yaa xamte wuñu premier ministre def déclaration de politique générale bis bu yëkkatee bilan wu bennoo teg ko ci table bi bennoo boo ko yaakaar fu ñu dajee ti wax sénégalais yi tas mais ñoom nee nañ dañu nga xamante ni moo di wax na la yàkkamte wuñu bu dee dana tegaale euh, nu mu tudd auditu gestion gars yi wóor naa la gars yi yàqamtu. boobu les déclaration sax président si janoom nee na daal ñu ngi ci ñu ci dox ay jékko jot na yéeg gisee ak ki nga xamante ni moo di le président de l' Euh, kii de Abdoul Mbow nag ba tey ci réplique bi nee daal président bu mu def comme si daal moom fu mu ne nii moom moo nekk rek di gérer li nga xamante ni moo di boobu le problème maanaam moom moo ci war a dox li nga xamante ni tànku jàmm. xam nga man man malheureusement. mais nag déclaration de politique générale li ci li ci président wax jur na coow de. jur na polémique depuis hier yaa ngi koy dégg. Ah, lu tax léegi ba ci ni mu ne sax ñaan na. ñaan na loolu du ñaan na premier ministre ngir mu bañ a def. déclaration de politique générale am ci mbedd bi. am na ñu ne moom président amul pour di ñaan. sagesse la wane xam nga ñoom seen jikko ci pouvoir rek la ñuy wane ñoom xamuñu ñaan xamuñu njekk mooy liñ nekkoonu ñun force xam nga président de la république moo yor tous les prérogatives mais daf la woon sages daf la woon oyof daf la woon cërale loolu mooy chance ñoom Abdou Mbow yi nit lañ ko séqal nit ku nit ku élégant nit ku xam àddina mais ñoom Abdou Mbow bu ñu ko séqoon ak woyu comme ñoom heure bii ñoom dootuñu wax ci dëkk bi. amoon nañ ciy fekk. mais bëri na Benno Bokk Yaakaar heure bii bu nit ku meloon ni ñoom uutu leen ñoom dootuñu génn dëkk bi bay taal conférence mais li leen dimbali dañ ko séq nit ku baax nit ku élégant nit ku xam àddina ko maanaam loolu mooy chance ñoom ab Mbow. nit ku leen di déglu aussi président nit ku leen di déglu di déglu ñëpp di déglu bay déglu journaliste yi. maanaam nit ku attentif nit ku élégant loolu mooy chance ñoom Abdou Mbow mais bu ñoom buñ daloon ci ku xaw a mel ni ñoom heure bii tal leen leneen lu dul tontu ay conférence de presse yu kenn xamul loolu mooy seen chance mooy d'avoir eu un président bu mel ni Diomaye nee na aussi tamit yow yaa ngi naan président dafa am élégance mais boobule élégance su président moom da ko remettre en question parce que nee na président <laughs> tey jii manque d' élégance am weesuwul même ba ñuy dem ca pointe bu Sangomar di amal yi nga xamante ni moo di exploitation pétrole yu njëkk yi président nee na foofu war na fa war a mën a remercier président Macky Sall tudd ko. ci waaye nee remercier wu ko sax. ci lan Macky Sall bi muy inauguré aéroport bi polémique bi ci amoon ak Ablaye Wade da nga dafa am ne zik wala du gis fu sori ndax taay bi wala nañu waxtaan noonu nañu waxtaan bu dee nu Mbow bu taxawee du gis fu sori Abdou Mbow ñu fàttali ko démb Macky Sall ak aéroport bi xam nga yooyu yàggut lan la Macky Sall lan la jomaay di gërëm Macky Sall ñun Macky Sall lan lañ defal lu dul jël contrat pétrolier yi signé ko nu mu ko neexee dem yoonam dañu respecté quoi en fait ñoom bu dee il idolâtre Macky Sall ñun Macky Sall benn citoyen lañ ko def boo xam ne c'est un ancien président on euh, euh, jox ko respect ak ci war yëpp mais defuñ ko suñu yàlla nag quand mm-hmm. may jàmm. Mm-hmm. xam nga ay détails moom xam lu mu war a fexe. Mm-hmm. assemblée bii muy jéem a bloqué. bu ko bloqué defu ko Diomaye defu ko Ousmane Sonko sénégalais ba ca Sinthiou Mamadou Siré la ko def. daf koy jéem a bloqué. ah bi ci Malem Odar la ko def sénégalais bi ci Ndramé sénégalais bi ci fële sa dëkk ba. dagana dagana la ko def hôpitaux yi du am matériel nit ñi di feebar nit ñi di joxe bakken di di ñàkk bakken ainsi de suite mais bu dee nag moom loolu ñoru ko bon il n'a qu'à ne façon président moom li ëpp ci sénégalais nee nañ ko na tas assemblée bi. nee nañ ñu ngi ñu ngi jëm ci li nga xamante ni moo di dissolution bi fii ak am na sax. ñuy xaaral li nga xamante ni moom moo di. man gëm naa ne la 31 ci minuit ci minuit assemblée bi warut faral. sincèrement assemblée bi warut fanaan le 31 ci minuit assemblée warut fanaan loolu man loolu laa gëm. ñu ngi waajal ay élections de nee nañu fekk. ah waaw élections yi moom mi ngi ñëw. Mimi Touré pressentie foofee ci assemblée nationale en tant que présidente. casting bu baax la non seulement di nga fay polémique gu soi soit soi-disant ndax man gëmuma ko féministe yooyu doon wax naan asa gouvernement bi cërale wuñ ci jigéen muy beneen bi jox nga ko nit ku maîtriser yi fi ku am xam-xam femme d'état jàmbaar tamit dëgg yàlla et puis di nga réparer injustice buñ ko tegoon dama gëm ne man xam naa koo xam ne Macky la doon nooyi mi ngi génn ci moom ci liñ def Mimi Touré biir assemblée moom ca la ci suuree ci Macky Sall donc jàpp naa ne boo ko ko joxee casting bu baax la nit ku nit ku ñeme assumer ay position la quoi xam nga man dama gëm. nit ku nit ku dëggu te Mimi Touré dafa dëggu man loolu dama ko gëm Mimi du defantu gis nga Mimi bi mu nekkee ci Macky doo làmbantu ndax Mimi ngi ci Macky wala newu dafa takk sëram ku janoog Macky mu dóor la xeer bi mu génnee yi di ko opposé doo laajte ndax Mimi day opposé wu pas man loolu dama ko gëm mooy dangay ngay saf yàpp mbaa nga saf leneen man loolu laa gëm ci Mimi Mimi loolu daf koy defar. mais Mimi Touré tey jii bu nekkee à l'Assemblée nationale en tant que présidente. Mhm. jàpp nga ne avec ou sans majorité parlementaire dina mun a dina mun a dina mun a siéger normalement. maanaam président assemblée. waaye ah, Mimi non assemblée bi man gisuma luy tere nguur gii nii am fa majorité confortable sax. Mhm. Mhm. bu ñu ko tasee rek sénégalais jox leen. am na ñu jàpp ne taxawaay bi opposition am temps yi mun nees nañoo euh, xajamal cere ji de. cinquante député ndax saa yu président génnee wax ñoom ñu gontu tontu. opposition bi. cinquante députés ñu ngi adopté tamit stratégie bi nga xamante ni Pastef amoon na ko. xoolal PS. jamono yi mu nekk opposant man kay damay rati sa PS. lay des ci Benno ñoom ñoom ceer ak ñooñu noonu ñoom buggaan ak ñooñu clic googu boo leen dajalee cinquante députés duñ ko am. bàyyil dem ci assemblée. ne cheikh bi. ndax naru naruñu minimiser opposition bi la daloon Macky Sall ak Sonko dal leen finalement. Macky Sall xeeb na Sonko. finalement non opposition amagut